Yeah, xarit la jëf yi borom wëllëre la ndax mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jóge woon te bokkoon Cheikh Mamadou Moustapha mu lo loolu lépp indi fi teraanga jiite at mu ne mu def ko kon yàlla na ko man sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm euh, di ñaan yàlla yàggal ko fi moom itam te wéral ko ba lii muy def mu gën ko man euh, ndax mag ña bég nañ ca kon euh, ki mu koy defal itam di suñu sang di sëriñ Ahmad mi toog moom itam njaboot gi ci turu njaboot gi daal xudus yépp ñu ngi koy sant bu baax a baax baax Euh, ndax nu ngi koy xoolee suñu waajur ya tam mate ko sëkk euh, ndax euh, daf ñoo sagal ci ñetti yëf wutu fi suñu waajur ya te kenn ku ne la nga yéene woon mu mottali ko ci njaboot gi waaw di di mu safaa mu mat sëkk ñaareel ba déggeeral gii nga xam ne te jamono jax te fu nu dem nu sagoo ko waaw ku ko tudd rek nu sagoo ko Euh, ndax fa Cheikh Mahamad Moustapha tegoon tànkam ak passef ba ak fonk ga Serigne Touba fonk nga bokk fonk gi euh, kër gi ak wëlëre wi loola itam ci la nekk guddi ak bëccëg ba fu nu dem danoonu siggi ñetteel ba moo di euh, ñii nga xam ne nun nooy taalibe yi taalibe yi nga xam ne noo àndoon ak waajur ya njaboot gi ñu fi bàyyi itam mu teg ci loxo ba tëddañ yaaxaanaay lépp lu baax lu waay nësër da lay wóor ne da nga koo da tibbe ci moom ndax saa yu ñëwee rek day mel ne loola danga ko ko yëgaloon bu yàgg euh, lépp lu lu baax rek ànd na ca euh, tëdde njaaxa njaaxaanaay bu baax a baax a baax ba yàlla wa def tey lii nga xam ne moo di bennoo gi xol yi nekk benn pësteef yi yokk lépp ànd ñu def wenn say sunu borom tuddee ko ci jaare ko ci loxoom loola la ko waral mooy la mu mottali liggéeyu mag ñi fi jóge woon te loolu moo doon seen wàll waxtu wu ne tàmbalee ko ci sëñ Cheikh Gaynde faatma mi nga xam ne histoire war maanaam ameel na ko njukkal waxu ma dara sax waaye bu dul woon bu doon turu daayira bi mu fent rek nga xam ne jabasar yi yëpp ñu ngi ciy jariñu jamono yi yëpp a ngi ciy jariñu te ni ñu ko waxee xeeti mouvement bu ne am na ci addina ak ndaje bu ne am na waaye aljamaatu rahma bu ñu koy wax moo di mbooloo mu ànd booloo bokki pexe bokki xalaat bokki jublu rawatina ñu bokk jublu ci Serigne Touba mu indi forme day